seen émission bi ngeen baaxoo déglu fii ci Bawol Média dellu siwaat na muy basiran wa nasiran ki leen koy taxawi di seen mbokku sëñ Maamor Ngom Yakhine bu Touba Darou Salaam ñoo ngi yi ñëpp di nuyu ñëpp di balu xaq ñëpp di balu xaq ñëpp di jiital ci nuyu bi Chaibul Fadila Cheikh Mahamadinil Muntaka xafisa ullahu wa ra'ahu wa baqa umruhu amin bi jaay Seexina Ahmadul Xadim di ci jëkk Cheikh Moudou Mbenda Fall moom mi nga xam ne moo toog jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine di leen ñaanal yàgg ak wér ak mboolem ñi nga xam ne ñoo toog ci seen jotaayu waajur ya wuutu leen fi yal na suñu borom yàggal taxawaay bi di nuyoo ko siyaar sunu technicien bu mag bi sëñ Modou Diop Thiat di ko ñaanal yàgg ak wér di ko ñaanal yàgg ak yeggale ak mboolem ñi mu séqal liggéey bi yépp kilifa yi ci biir kër gi yépp ñu ngi leen di siyaar la dale ca kaw ba ca suuf ñu ngi ciy jiital Baye Diagne fay mi nga xam ne moo jóg léegi di ko siyaare ci xam-xam bu rafet bi te di ko ñaanal yàlla suñu borom fiq fan wi Baye Cheikh Gayre Diall di ko siyaar bu baax baax bëgg fàllu nu bokk ku bëgg di siar mbollem oustaz yi muy asatis yi ci bir kër gi di leen siar bu baax baax di siaré mbollem technicien yi nga xamné sen ñoo nekk ci bir kër gi tax ngeen ñuy déglu ci seen télévision Bawol Média ci seen émission bi di Basiran wa Nasiran ngeen xamné alxemes bu nekk lañ koy def dellu siwaat nan di leen ko defal te di leen jéggalu ci alxemes yi jàll nga xam ne déggu leen ko di siyaare mboole mbokki taalibe it te di leen xamal ne koor gi rek moo tax waxtu wi xaw a tuxu tuuti yéeg ci kaw li tàmbalee dix ba onze bu ñu demee ba koor gi jeex ak jàmm dañ ko delloowaat fa mu nekkoon àndaat ci ak yéen gën koo jekk-jekkalaat gën ci indiwaat yu baree bari yoo xam ne surprise lay doon noo ngi wax asalaamaaleykum mboolem ñi nekk ci marché yi di dallu tey déglu ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum asalaamaaleykum mboolem ñi nekk ci oto yi di dem ak dikk ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum taximaan yi ñoom ñëpp ñu ngi leen asalaamaaleykum asalaamaaleykum ñi nekk ci biro yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen wax asalaamaaleykum asalaamaaleykum mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci daar yi sëriñ daar yi ak mboolem borom xam-xam yëpp ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum di wax asalaamaaleykum mboolem ñu nekk ci kër gi nga xam ne mooy auditeurs yeeg auditrices yi yu bawal média yëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax baax a baax la dal ci kaw ba ci suuf xañ na ku lim doo matal wala nga desal waaye ñëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax kun tudd kun soxna Warka ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax sëñ Fallou technicien moom itam ak Cheikh Ibrahima Khalil ak sëñ Pape Diop mi nga xam ne moom lañu Fegol ak soxna jaba ñom ñep ñu ngi leen di siar, bàyyiwun kenn bàyyiwun fenn bàyyiwun ñen kon mbokk yi ci waat nañ ci seen émission basiran wa nasiran bi nga xamne mom leen leen baxo defal sunu borom subhanahu wa taala mi nga xamne mo nu andil koor muy shahru ramadan ñu nekk ci njeexit li nanu xamne koor kat mi ngi ni di dem waaye nag jaamu yàlla moom du jeex bu koor jeexit jaamu yàlla du jeex kon mbokk yi bu ñu tollee ci koor muy saxru ramadaan muy weeru barkeel di weeru ngëneel di weer woo xam ne li ci sunu boroom def moom rekk moo ko xam moo xamit tolluwaay bi booleeg nag dafa nu ci génn guddi goo xam ne mooy laylatul xadar mooy guddi gi nga xam ne mooy guddi dogal noo ngi ñaan sun borom subhanahu wa taala weer wi yàlla bu mu doon suñu mujjugu koor yal sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo mën lépp te sañ ko moom nangul nu lépp luñ ci woor lu muy niiw ka bari sun borom nangul nu ko te fulal nu ko na mu tolloo sun borom subhanahu wa taala sunu borom subhanahu wa taala li mu bëgg ci ñun du lu jafe lu jàppandi rek la bëgg ci ñun kon war na noo xam ne sunu borom subhanahu wa taala yërmande la sunu borom subhanahu wa ku ñeewanti bindeefam yi la sunu borom subhanahu wa taala buur la bu baax boo xam ne mbaaxam kenn mënu koo wax bu mu sotti ndax sunu borom subhanahu wa taala don na ko xamne bëgg na bu sahru ramadan di jeex moy wéru koor mu yóbbaale li moy nanu xamne sunu borom subhanahu wa taala wax na ci alquran ne binduma len ngir ngeen fo kon kep ko xamne yaangi don fo ci bir weer wi na nga xamne sunu borom subhanahu wa taala bindul nit ñi ngir ñu fo sunu borom nag subhanahu wa taala bu ngeen màngee weer wi te gëm xufira lahu maa taxaddama min san bi wa maa taakaar leen jéggal seen bàkkaar yi jëkk ak seen bàkkaar yu mujj te loolu mënuñu ko am ci wenn weer wu dul weer wi mooy weeru ummatu rasulullahi sallallahu alayhi kon weer wi bu fekkente ne mu ngi dem lan ban yóbbal mooy gan goo xam ne dafa ñëwoon tekki ay bagaasam ñu dalal ko ganale ko buy demit lan lan war a def nag mu di ab yóbbal ñu jox ko ko mu yóbbaale ko loolu incha allah sunu waxtaan yépp ci loolu lay jëm tey mooy weeru koor bu dee dem war nañ koo jox ci sëriñ mu yóbbaale taqwallahi muy ragal yàlla saaxiran baatinaan war naa def ci ñun taqwallahi war naa def ci ñun infaaq fi muy dimbalante war naa def ci ñun nit moytu ak tooñ ak topp ak tooñ ak di tooñante ci sunu biir war na it ñu ñaan sunu borom subhanahu wa ndax weeru ñaan la di weeru njéggal di weeru yërmande di weeru barkeel di weeru gore kon yi yëpp war na bu ñuy dem ñu takkaalil ko mu yóbbu ko mooy dimbalante mooy bëggante mooy soppante mooy ñime dëgg tey waxante dëgg te nungu dëgg li jafe lool nag ci pénc mi ndax Sénégal ni mu bindoo mooy dëgg moom mën nañ koy maslaa nii ci kaw waaye nungu ko dëgg dëgg ga loolu moo të kon weeru koor bu fekkente mu ngi dem war góor góorlu ba mu yóbbu sunuy jëf yu baax waaye nag weer wi bu demit jaamu yàlla jeexul ñu yokkaat sunuy naafi la yokkaat sunu dimbalante yokkat sunu jéggalante te xam ni nit ki la tooñ ak tooñ gi lu mu rëy rëy rëy ak lu mu tuut tuut tooñ nga sunu borom lu ëpp loolu te sunu borom jéggal la ko wala sunu borom wax ne la boo jéggaloo mu jéggal la ko kon nanu xam ni nit it bu la tooñee tooñ gi ak lu mën a xew ak lu mu rëy rëy rëy tooñ nga sunu borom lu ko ëpp. ñu man di jéggalante bu baax a baax kon bu ñu yegsee ci weeru jéggalante wii war nañoo jéggalante bu baax te muy dëgg ci noon te it bari na ñuy wax ne diw sama noon la waaye nit amut ab noon lu dul seytaane seytaane rek mooy sunu noon nan ko jàppe mu di noon ndax loolu la alxuraan wax te loolu alxuraan wax mooy dëgg ndax mooy li bàyyi koo fa sunu borom subhaanahu wa taala di waxi sunu borom kon li sun borom def ci weer wi yépp muy weeru ngineel di weeru barké di weer wo xamni li ci sun borom def kenn mënu ko tudd ba mu sotti mu defaat ci biir nag loo xam ne mooy jàng gàkk-gàkk yi nga xam ne moo ci biir jaamu gii nu doon jaamu sun borom subhanahu wa muy léeg-léeg ricc-ricc yi nga xam ne day dal doomu aadama ci matadik doomu aadama mu indi leneen lu koy jàng muy asaka yi muddum koor asaka yi muddum koor am na ñoo xam ne bu weer wi feeñee rek ñu génne ko am na ñoo xam ne bu amee fukki fan lañ koy génne am na ñoo xam ne bu amee ñaar fukki fan lañ koy génne am na ñoo xam ne bu ñu xasee lay laylatul xadar génne ko am na ñoo xam ne démb lañ ko génne am ñoo xam tey lañ ko génne am ñoo xam suba lañ koy génne waaye ala ku laal loolu lépp nan ko génne rek ngir jëm yàlla te jox ko ñi ko yàlloo waaye te génne ko ci ni mu gëne ni mu gëne mooy lan dañ naan senegaal wala réew mu nekk la ëpp ci la ñuy dunde waaye senegaal moom bu ñu xoolee li ñuy dunde boroom xam-xam yu sell yu rafet yëpp dëppoo nañ ci ne senegaal moom xaalis rekk lañuy dunde lu waral loolu mooy léegi li ëpp ci dëkk yi doo dem mukk fekk fa ay sàq li ci dëkk yi doo dem mukk fekk ñu tegale ay saaku saakuy ceeb li ëpp ci dëkk yëpp doo fekk ñu tegale ay saakoy gerte li ëpp ci dëkk yëpp doo fekk ñu tegale saakoy dugub kon lépp ci lu ñuy dunde mooy xaalis xaalis daal mooy li gën ci ñu génne ko ndax bu dee ceeb dañ koy jëggaani te xaalis lay jar bu dee dugub li ëpp dañ koy jënd te xaalis lay jar bu dee mboq noonu bu dee gerte noonu kon daal li gën ci nit ñi ñoom ñépp ñu maase ci di génne xaalis ci waxtoom te jox ko ñun ko war a jox mooy miskin ak foqraa miskin yi nag boo ne miskin nit ki moom nungu na suufeel boppam waaye nunguwut ku ko suufeel kon ñi nga xam ne ñoom lañu koy jox léeg-léeg ñu jox ko xale boo xam ne bu ëllëgee muy tiitaroo sama baay joxoon na la muddu koor ndax danga bokk ci way ñàkk yi waaye loolu sunu borom subhaanahu wa taala la neex te kenn ku nekk mën nga dénk sa njaboot ci nu moytu di ñaawal walla di wax jëmi ci jaami sun boroom yi nga xam ne jombut kii ngay jox asakay muddum koor wala kii ngay dimbale ngir jëmmi yàlla wala nga koy dimbale rekk nga di ko xool bëti démbkat maa la doon dimbale mënoo maa jaay dara mënoo maa jaayub taar ndax bët bu set ma yónni sama doom wala ma yónni sama soxna ci mu indi ndimbal ci yow kon amul lenn loo ma mën a jaay ba ma gis ko fekk déedéet loolu sun boroom la neex ndax fii waa ji toll ba nga koy dimbali mënoon ngaa nekk place boobu toll foofu te sun boroom jëlee la fa yéegal la tuuti nga tiim ko koo kii nga tiimit yow am na ku la tiim ko ëpple am na ku la ëpple kon ala kulaal ndimbalante mënta ñàkk ci sow kaw suuf te ñépp ñëpp soxla liñ dimbal ku dul sunu boroom ñëpp nag ñépp doomu aadama yëpp soxla nañ ndimbal ñëpp a ko bëgg ñépp a ko soxla te kenn ku nekk danga taxaw ci bunt di sàkku ndimbal ak loola lu mën a doon ak nu mën a doon ndax loo barile le dinga le romb loo moomut loo man-man di nga am ku la gën a man loo barile le gis ku la gën a barile loo barile le danga le da romb loo moomut kon nun ñëpp ay jaami yàlla lañ yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala li mu def moom la soob mu defe ko nim ko defe moo yëkkati ñi ca kaw fab ñeneen suufeel ca suuf fab ñeneen ba ca ña gën a suufe ndax yonent yi la tànn ci seen ràng ya te garaat mi ngi yem ci doon ab yonent te yonent yi alayhimu salaam ñi ci ëpp amuñoon alal ju ñuy denc amuñoon ab jal amuñoo ay compte banque waaye jeexaluñ dara te amuñu dara kon ala nit ki su ko sun borom manee gan fii ci àdduna it war naa xam ne am na ku ko ëppale ginnaaw bu mu génnee ci koor gi sunu borom subhaanahu wa ma nga naan na leen wóor ne binduma leen ngir fo dama leen a bind ngir ngeen jaamu ma moxlisiina lahu diin te ngeen sellal jaamu gi nan ngeen koy sellale mooy ngeen xam li tax ñu bind leen ne ay jaami sunu borom ngeen kon sunu borom subhaanahu wa taala bëgg na nu bàyyi xel lii alquran di wax subhaanahu wa taala di nu ko wax ya sunu borom subhanahu wa fu mu toll di wax ak ñun ci alquran xelaxnaahu xabasan wa ilayna la turjiun fa haada allahu almulk alxaq alayhi wa huwa rabu alxarsi alkarim wa man yati ma allahi ahad axiruhum na ngeen xam ne sunu borom xalaqnaahu abasan ndax da ngeen a yaakaar suñu borom da leen a bind ngir fo déedéet yow mii nekk ci biir dam bi yow mii nekk ci damye bi ne la wóor ni suñu ngir damye yow mii nekk ci biir yoote bi na la wóor ni suñu borom bindu la ngir yoote yow mii di lido na la wóor ni suñu borom bindu la ngir nga nasaraan yi nag gañe nañ xeex bi ndax léegi yombal nañ lépp mooy yii nga xam ni mooy lëtëri yi mooy carte yi yëpp yombal nan ko fenn fu nekk ñu teg ko fa ngir gañe xeex bi kon sunu borom subhaanahu wa bëgg na nu xam ne bindu nu ngir nu fo bindu nu ngir nu nekk ci àdduna di xeexoo ka ŋaayoo binduñu ngir ñu nekk ci àdduna di ëppalante ay alal waaye kenn ku nekk bi ngay gane jamono indaale woo dara te booy dem doo yóbbu dara ndax li lay topp dañ la koy toppal kon sunu borom subhanahu wa taala bëgg na ñu bàyyi xel ci sunu bopp bàyyi xel ci sunuy moroom bàyyi xel ci sunu boroom ndax sunu borom subhanahu wa taala su ko neexon foo jàdde mu caw la waaye sunu borom kat moom gi munu moom ak xam gi mu xam ne moonu moom te xam ne bari wunu doole te it xam ne xalaqal insaana min daif day fa bind doom aadama ci ak woyof ci ak doya di bind ko ci loo xam ni lu doyadi la sunu boroom xam ne doomu aadama amul doole amul kàttan amul man-man te day fàtte mu bindul nag ci ab coono ñu war di bàyyi xel sunu boroom li tax mu bind nu indi nu fi mooy li tax sunu boroom bind nu indi nu mooy ñu jaamu ko kon weeru koor wi mi ngi dem yal na nu fi bàyyi te buy dillu si yal na nu fi fekk waaye weeru koor wi war naa def ci ñun loo xam ne ku nu gis xam nun kat noo ngi woon ci weer di weeru fóotu di weeru sangu di weeru leerlu di weeru góorgóorlu bu baax ci ndigali sunu borom yi subhanahu wa taala te moytu tereem yi sax ci moytu volontaires yi suñ borom yi bañ koy jéggi mooy li gën ci noonu kon su ko defee ubbi nañ ligne bi ci 88 628 19 05 kii nekk ci technique bi mooy sëñ Pape Diop tey kon képp koo xam ne rek ba ngaa bokk ci waxtaan wi mën ngaa jaare foofu yéen a ngi ci seen émission Basiran wa Nasiran ci télévision Bawal Média rajo télévision Bawal Média moom ngeen di déglu émission Basiran wa Nasiran kon mën nga noo yëkkati rek euh, sunu jëngal boobu te soppil nu ko suñu fàllu fàll ñu dellu si ci waxtaan wi incha allah kon mbokk yi man ngeen a jaar foofu rek ci 88 628 19 05 kon mën nga ya noo yëkkatil sunu jëngal boobu incha allah. no sé poner. de mi razón. jërëjëf sëñ Fab Diop ci liggéey bu rafet boobu kon 88 628 05 ñu bari dañuy wax ne émission bi dañuy jël sa numéro ngir dugg ci rajo bi waaye loolu mënul nekk saa yu ñu toogee ci studio bi toog ci plateau bi fi ngay mën a jaar dëgg mooy 88.5 mooy fréquence bi 88.5 waaye fi ngay mën a jaar mooy 88 628 19 05 ñaari 8 ngay def def 6 def 2 def 8 def 1 def 9 def 0 def 5 88 628 19 05 foofu rek nga mën a jaar ngir jot sëñ Maam Mor Ngom Yakhine ci rajo télévision Bawal Média kon am na ku nekk ci ligne bi mën ngaa jaaraat foofu rek 88 628 19 05 88 628 19 05 képp koo xam ne dugg nga ci ligne bi rek mën ngaa téye dinañ la jël incha allah waaye boo duggee génnaat rek boo yoree ay écouteurs it mën nga koo tekkee ndax dana tax diggante bi gën a neex. kon sunu borom subhanahu wa taala di wax ci alquran law anzalna hazi alquran ala jabalin la raaytu khashan mutasaddian min khasiyati llah wa tilka amsal nadribuha linnaasi laalakum yatafakkarun dëgg bàyyi ko na fa yàlla kon alquran bii amul dara lum bàyyi maa farax naa fil kitaabin min shay'in bàyyiwul dara dara dara dara moo tax ngir sunu borom subhanahu wa am na ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. Baye Ngom Mbacke. Mbaye Sylla la. Eh, sëñ Babacar Sylla. <laughs> Baye Ngom ñun ñun waa waa Furna jàmbar nag. allahu taala pourtant bind naa ko sax nag. <laughs> bind naa ko waaye loola ca fin ba doon. Eh, émission bi am na solo lool ya, macha ya, allah. alhamdulilah. ah alhamdulilah alhamdulilah yal na yàlla dolli xam-xam bi. allahuma amin. yal na yàlla gën a wéral. allahuma amin. ci barke borom Tuubaa ñu koy ñaanal bu baax a baax. alhamdulilah ana xale yëpp. xale yëpp a ngi ci. ñëpp ngi ci jàmm. ñëpp ngi ci jàmm ñëpp. bind naa ko sax na ngir bar koo fàtte. waaye loolu ci mujj gi lay doon incha allah la ñuy nuyu auditeur yi. wallaay wallaay ñu ngi lay déglu bu baax a baax. waaw waaw ndeysaan. ñu ngi lay déglu bu baax a baax. yéen a ngi foofa ca liggéey ba. ñu ngi ci liggéey bi. waaw ñu ngi siyaare gaay yëpp rek. kontaan nañu trop kontaan nañu alhamdulilah Sylla. jërëjëf yow moom da ngaa ñàkki caaxaan moom. <laughs> te ñàkk ki ñaan wax dëgg yàlla. waaw ñu ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu féq eh. saw fan bu baax a baax a baax. amiin amiin ñu bokk li nga bëgg ci liggéey bi yal na suñu borom def ci lu kawe njortu. yal na yàlla guddal sa fan. kay jërëjëf Sylla jërëjëf Silla kooku sëñ Mbay Silla la foofa ci Fourné jàmbaar ndeysaan mu ngi noon di feeñal yéeneem 88 628 19 05 mboolem koo xam ne rek bëgg ngaa bokk ci waxtaan wi mën ngaa jaaree foofu sëñ Mbay Silla ak mboolem xale ya ñu nga foofu ca liggéey ba doon ay jàmbaar lool ndeysaan moom itam doon koo xam ne ku ñeewante la ci liggéey bi te sopp nu lool bët bu set mu ñu nemmee ko wax dëgg yàlla sëñ Mbay la ñu ngi koy sant bu baax ak mboolem xale yam fa nekkal waaw leen góor ñu nga ca liggéey ba suñu borom subhaanahu wa li mu bëgg ci ñun mooy kenn ku nekk sàmmoonte ak àqi moroomam sàmmonteeg àqi dëkkandoo yi sàmmonteeg àqi daje bi sàmmonteeg àqi dëkk bi sàmmonteeg àqi réew mi ba tax na suñu borom subhaanahu wa mboolem koo xam ne dafa la dénk nga jiite am réew wala nga jiite a population wala nga jiite ay nit société bu mën a doon moo xam lu mën a doon nga yërëm leen ndax sunu borom daf laa yërëm moo tax nga taal ko bu dee ay xale la na la wóor ni am na ci ñoo xam ne boroomi jom lañuy doon am ci ñoo xam ne boo yooxoo ñu jaxasoo am ñoo xam ne boo waxee ñu fàtte liñ doon def am ñoo xam ne boo waxul dootuñu def am ci ñoo xam ne dañuy bëgg micc mi bëgg goo xam ne dana leen jaral lu ne sacrifice ngir mokkal ko ñooñu nag fokk nga di leen taaraar ndax na la wóor ne daara nga yor te micc mi nii nga def ba jot ci noonu nga war a def ba jottali ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko alquran wala waxoon ne ko ballaxa nii walaw aaya yonent bi sallallahu alayhi wa mooy basiran wa nasir mooy émission bii nii ñu ko tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci turam yi basiran wa nasiran del xuppe tey bégle te it foo mën a toll loo mën di wax ak lu wax ji rëy rëy rëy ak lu mu tuuti tuuti tuuti ak lu mu gàtt gàtt gàtt na ci njariñ feeñ mooy ku xool rek na ci gis boppam waaye sunu Sénégal gii neexut a waxtaane ndax li tax neexut a waxtaane boo laalee góomub jàmbur ñu ne kii man lay joxoñ man lay wax man lay gaaruwaale waaye loolu du tee nga wax ndax sunu borom subhaanahu wa taala wax na ak làmmiñ ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko feeg yéen a ngi digle lu baax di tere lu bon ma bàyyi fi dindi bi waaye bu ñu demee ba kenn digleetul lu baax kenn téreetul lu bon bu keroog la sunu borom di taxañ dindi bi kon sunu borom bëgg na fu ñu toll ñuy waxante ci sunu biir di laa biirante di soññe waaye nag te tegu ca yoon wa te nekk ca ndax loolu rekk moo nuy may jàmm te loolu it mooy li nga xam ne moo am solo ndax nit ki fi mu toog mën naa jàpp ne moom mii kat mi ngi ci ak dëgg te fekk ne mu ngi ci ak neen nit ki mën naa jàpp ne mi ngi ci ak neen te fekk mu ngi ci ak dëgg ndax seytaane dafa bari doole te seytaane waxu tuu jot day jax-jaxal doomu aadama nekk ci ëb dënnam nekk ci biir deretam di ko jaxase moo tax nit saa yu mere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ne saa yu lu meree nit ki saa yu meree ndax daa am ku ñëw ni ko dama bëgg nga dénk ma mu ne ko bul mer bul mer bul mer ba muy ñetti yoon mu ne ko saa yu ma ñëwee rek nga wax ne bul mer mu ne ko waaw ndax mer mooy noonu boroom nit ki saa yu meree rek mën naa wax lu muy rëccu mën naa jëf lu muy rëccu waaye soo meree yonent bi nee na benn da nga doon xuloo nga bàyyi fa xuloo ba dem jàppi na la wóor ne kon njàpp moom mu nga doon jàpp dana tax loolu deñ ci sa xol seytaane génn ci yow waaye jamono bi nit ki deexuloo seytaane day ëf ab xolam bu saagaa wenn saaga mu ne ko woowu saaga sëfut dollil weneen wu ko gën a saf nga gën a dolli ñeneen nekk ca wet ga di tëb di dal naan déggal lim ko wax kii moo mën a xuloo kii moo mën a saaga kii moo mën a dagg su ko defee nga yaakaar ne yaa ci nekk te fekk ne dañ lay jay fi nga jëm baaxul ndax saagakat day lëndëmal bàmmeel te saaga lu ñaaw la ay ñaawtiif la yoo xam ne duñ ko bind buñ ko bindalee nit ki nag dana dem ba lëndëmal bàmmeelam ba du xam fenn foo xam ne genn leer walla ceeñeer dana ñëw ci bàmmeelam kon nit ki daal alaakulaal war naa bàyyi xel ne koor gi nu nekk nag bari na ñoo xam ne njuufeen yi ak caween yi ak ñi sant ñing ak fay fu ñu toll di jàmbat di jàmbat rek koor gi dafa tàng koor gi nii ngelaw li nii mbooya mi lenn lu nekk ñu jàmbat ko waaye xanaa xam ne suñu boroom li mu def ci yërmande ci koor bala nga koo xam dëgg dëgg dëgg ñu wari bis bu nu naanee ndox ci ngay xam ne sunu borom subhanahu wa taala li mu def ci koor ci koor rek la ko def kon war nañu gurgurlu ndax ay fan yu ñu lim la bu bare ba bari fanweeri fan la su néewee ba néew ñaar fukk la ak juroom ñent kon tey la sentu bu jëkk daanaka koor gi jeex na ba noppi kon ñi sant ciaw ak ñi sant ñing ak fay ak seen ñoo ngi leen di dénk ñu jokk muñ li ci des bariwul waaye luñ ci woor lu muy néew ak bari yàlla na sun borom nangul nu ko kon 88 628 19 05 soxna Ngéye Faye mi ngi foofa mu ngiy gëmmeentu di bébbili rek ndeysaan ca marché ba ku ragal koor la mook fayee nii Serigne fay Baye Serigne Faye moom itam mu ngi foofu ci biir marché bi ku ragal koor la heure bii boo demee ma nga sàngoo sarbet ba di tooyal rek di teg ci kanamam ngir ne mbooya mi nanga waaye tey daa mel nit àngul kon su ko defee war na nañu góorgóorlu bu baax a baax ci koor gii niinu ko mànge sunu borom subhanahu wa taala lin ci wóor li muy niiw ak bari sunu borom nangul nu ko su ko defee nag ñu taxaw ci asakay muurum koor yi génne ko te jox ko ñiñ ko war a jox mu yegg fa mu war a yegg moo ngi siyaari mboolem borom xam-xam yépp nga xam ne taxawoon nañ temm ci rekk luy jindi jaam yi luy gindi bindeef yi di waxtaan ak ñoom rajo boo jàpp rekk yaa ngi dégg ustaas yi ak boroom xam-xam yi ulama yi di waxtaan ci ngineeli koor di waxtaan ci ngineeli julli di waxtaan ci xare bagar di waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak ñi mu àndalan taabiina yi ak taabiat yi nga xam ne góor yàlla yi ñoom nam muñu weer wi jeex ndax xam na lu ñu jële ci weer wi mooy góor yàlla dëgg bu weer wi teroo lañuy ñuy um ba dootuñu lekk dootuñu naan ba weer wi jeex ñu delluwaat ca seen koor yooya waaye ñi nga xam ne dañoo mel ni man weer wi li muy tuuti ak li muy néew néew di fanweeri fan képp wala ñaar fukk ak juróom-ñeent fu ñu toll ñu ngi jàmbat tëf yu baree bari dama woor ñu ci ëpp ñetti fan lañ ci woor wala ñaari fan am na ñoo xam bu ñu xasee laylatul xadar ne lakk naa samay beñe am na ñoo xam ne nëbbutu sax duñ ko ci def waaye ngir xotti woor maay koor ëpp naa def mooy di lekk ka naan te koor war ci yow nga baale loolu ëpp naa def te sunu borom day ku bëgg sutura la te sunu borom daf noo suturaal kon képp koo xam ne da ngay lekk ka naan ci bëccëgu weeru koor war nga ko nëbb war nga ko sutural ak lu mën am ndax am na kat benn yahud boo xam ne dem na aljanna bi ko borom xam-xam yi gisee biñ ko laajee daf ne leen man day xam naa li tax sunu borom yërëm ma ba yóbbu ma aljanna mooy dama fekk ci bëccëgu weeru koor sama sennas ndoom mu yor aw mburoom ci bëccëgu weeru koor di lekk ma talaata ko mer ca lool daldi koy soññ ci nag jullit yi dañuy woor te dañoo nekk ci bëccëgu weeru kon rafetut yellut jaaduwul ngay lekk ci bëccëgu weeru xoolal yahud booba sunu borom yóbbu ko ci loolu ci aljanna waaye xoolal ñun jullit yi fim mu ne rond beeg foo ci mën a toll ci marché yeeg da ngay gis ñoo xam dañ koy manifesté woo sax di wonewu yor sa mbuusu ndox gu sedd amoo ci benn kersa yor sa mburu def ca sa yooyu ñu ci def amoo ci benn kersa yor say pinole dégg nga maam te naan attaay mbaxal mi ni mel démb xëy na raw dégg nga maam nañ toog mbaxalam nangam nangam yu yëpp amul sens ndax li amul sens mooy nit ñi kat yaa ngi koy wonewu ci ñoom waaye ñoom it am nañ fulla ak fayda ju toll nii jàpp seen koor xam ne lii yàllaa leen ko teg te yàggul dara ñu fekkale ci lekk ak naan nga am kersa kon nit ki war naa kersa woo sunu borom war naa kersa wu nit ñi war naa kersa wu malaaka yi topp ci moom di ko bindal mboolem kàddu yi muy wax ak jëf yi muy jëf yépp fu mu dugg mu dugg fa atib ak raqib te mënoo leen a raw benn yoon nit ki daal na xam ne suñ borom daf ko jox ab téere boo xam ne bii min ko takk ci aw loosam du tàggoog moom bii min ko wékk ci ab xolom du tàggoog moom bii ma ko teg ci ëllëg yow ma yab asuun ca kanam balaas ya te lépp loo xam ne atib ak raqib bind nañu ko te faruñu ko incha allahu taala bu ëllëgee sunu borom dana ne iqra kitaabaka wa kafa bi jàngal sa téere bii kat waaye kat boo jàngee téere bi na la wóor ne kenn du la tooñ lépp loo ci gis ne xamal ne yow yaa ko ci def téere bi lépp lu ci nekk moo tax alakulaal léeg-léeg nga yëgg ci téere bi ubbi foo xam ne doo fa gis dara mooy place bi nga toog mu niil mooy place bi nga doon lidoo léegi nag waxambaane yi ñi nga xam ne dañoo am fukki at ak li ko wies ba li ko ëpp da ngay gis ko am 30 ans wala 29 ans nekk ci foo fekk ñu sëgg nag na la wóor ni ci Lido lañu nekk ndax léegi kat yombal nañ ko ba téléphone boo gis rek def nañ ci application boo xam ne mooy Lido nga xam ne da kooku sax boo amee wala nga dugg wala ñu jàppale day yuuxu yooyu yëpp di la encouragé di fo moom moo xam ne sunu borom daf noo tere woon nu fo ndax fo du lu dara te sëriñ bi am na foo xam ne loolu la doon wax nee na nit ki daal na xam ne ñett yii lenn lu ci nekk jar na bàyyi xel nee na fo du la jariñ adduna du la jariñ alaaxira nee na nag jaamu yàlla mooy jariñ adduna mooy jariñ alaaxira nee na li ëpp a def nag fal yasi billah mooy mooy yàlla du la jëriñ adduna du jëriñ waaye dalay alak ci adduna alak la alaaxira kon nit ki dundam yëpp sunu borom subhanahu wa taala daa bind ñaari malaaka yoo xam ne ñoo la topp bindaat juróom-ñeenti malaaka yoo xam ne ñu ngi xaar sa ruu gi wadd ngir ñu ñëw bind koo xam ne sag lekk ak sag naan ci lu xam la ko teg li ngay wërsëgoo ak foo mën a jëm ak foo mën a jaar lépp mi ngi topp wërsëg woowu fenn fu ci nekk di la ko wërsëgal waaleykum salaamatullaa kon nit ki war naa bàyyi xel dundam gi lépp dafa am njariñ ndax sunu borom subhaanahu wa taala bindu nu ngir nu fo te sunu borom subhaanahu wa bind gii munu bind coono bii mu daj ci ñun wërsëgël la ñaari loxo wërsëgal la ñaari bët wërsëgal la ñaari nopp xanaa xamu ne sunu borom subhaanahu wa li mu def ci am nopp rek yéeme na nopp képp li ci sunu borom def gis nga nit ki fi mu nekk ni mën ngaa toog ak nit di déglu kii di wax ay wolof ba yàgg ab pël ñëw nuyu ko mu wax ak moom ci ay pël yow mi toog ak moom yaa ngi dégg li muy wax waaye doo xam lu muy wax son bi sunu borom wëlbati ci nopp waa ji ba muy dégg pël bi làkk wala muy dégg anglais bi di wax wala mu taal téléphone am muy wax ay français te mu doon wax ak kii ay wolof te kii déggul lu dul wolof son bi sunu borom wëlbati loolu mu gën a yéeme moo tax sunu borom subhaanahu wa lu mu dig war nañ koo gëm sunu borom nee na. wa atihi yowmal qiyaamati fardan kulluhum atihi yowmal qiyaamati fardan jëmm ju nekk da nga ñëw nag ca kanam sunu boroom ak li nga indaale ah bis boobu jar na bàyyi xel mbokk yi mbokk yi bis boobu jar na bàyyi xel ñu ñëw ci kanam sunu borom subhanahu wa taala da nga gis ca bisub yowmal xiyaam booba nit ñëw ñu ràng ko lu doon ay téléphone muy sëgër sëgër ak moom ba ci kanam sunu borom subhaanahu wa taala ñëpp di ko xool waaye kooku yéemewut am na keneen ku ko gën a yéeme kii ñëw ñu ràngal ko ay béy ndekete kii kat sàcc béy rek la doon def kii ñëw ñu ràngal ko ay xar yu dul jeex muy sëgër sëgër yi diis gann ba ci kanam mbooloo ma kii ñëw ñu ràngal ko ay oto mu yenu ko diis gann ca kanam mbooloo ma te mënoo koo ñàkk yóbbu ndax lan moom daal parking ñu jàmbur yi rek la toppoon di sàcc ay oto rekk kii ñëw ak ay jaasi ñu ràngal ko ko kii ñëw ak ay portable ñu ràngal ko ko kii ñëw ak ay dàll yu dul jeex ñu ràngal ko ko mu diis gann ndekete woo kulluhum aati yowmal xiyaamati fardan kenn ku nekk da nga ñëw indaale say pàggu téef kii ñëw indaale dara lu dul ay saami kaani yu dul jeex fenn fu nekk ñu takkal ko fa saamub kaani ndekete bi mu duggee ci marché bi sàcc kaani rekk la doon def ñii sàcc jaxute kii di sàcc jën kenn ku ci nekk nag loolu nga indaale ko ca kanam mbooloom ñu janoog yow te doo ko mën bàyyi mukk léeg-léeg nga gis nit ñëw ca kanam sunu borom subhaanahu wa taala indaale baat bi fenn fu nekk di nàcc ndekete kii kat dañ ko goroon jaasi wala dañ koo jamoon paaka mu ñëw ak noonu ci sunu borom janook moom ne ko mankat dañu ma reyoon te kii moo ma reyoon li taxoon mu reyoon ma na la ko wax yow sunu borom subhaanahu wa taala moo tax mbokk yi war nañu dellu siwaat sunu xel bu baax a baax a baax di seetantal sunu dund di seetantal sunuy jaar-jaar ndax ëllëg nun ñëpp danañ teew fa kanam yàlla wa kulluhum aatihi yowmal xiyaamati fardan nun ñëpp amul kenn kuy des rendiw bu ñu mas a woote nag dana am ku ko wuute ba mu des yowmal xiyaam nun ñëpp danañ teew fa kanam yàlla nit ak jinne ak mboolem li sun borom bindoon te kat bis booba baale amul de mbokk yi bis booba baale amut képp koo jëlal lu tol ni fepp suuf te jéggalu ko fii ci àdduna bu ngeen teew yowmal xiyaam dana ko fay te kat bari na aji koo xam ne foofa la fàggu xaalis du fa nekk ay iPhone nekku fa ay béy nekku fa xar nekku fa waaye jëf ji nga jëf sa jëf ju baax yi lañu jël di ko faye ba mu jeex tàkk ñu jël ñaaw teefi ñooña di la ko jóor di la ko jóor di la ko jóor ba nga àl moo tax léeg-léeg tooñ nit mu ne ko bàyyi naa la ak yàlla mu ne ko bàyyi nga ma ak sama xarit ah daa nekk ci àdduna rekk daa nekk ci àdduna rek di waxe noonu ànd ak sagoom waaye wallaay bu tëjee ci lalub sukuraat dana xam ne tooñ yi mu doon tooñ yépp du woon loo xam ne lu mu yaakaaroon moo yuuxu dana jibe fa mu ko yaakaaroon kon mbokk yi nanu dellu siwaat sunu xel bu baax a baax a baax de moytu toonante ci sunu biir tey baloonte xaq gis nga weer wii li ci sunu borom def ci ak njéggal def ko ci yërmande baloonte xaq gi ñuy baloonte xaq rek moo tax suñu borom def ci lim ci def ci yërmande def ko ci njéggal te defu ko ci weneen weer sunu borom indiwaat genn guddi nag boo xam ne junniy weer mooy dunduk nit ki daal juróom-ñett fukki at ak ñett yoo xam ne lépp dañuy nungu dundoom gi nungu jaamu yàllaam gi moom la def ci guddi lay latul xadar soo taxawee rek ci guddi ga am ay minit yoo xam ne yaa ngi taxaw xam ne yow mii kat da taxaw kaanam sunu boroom subhanahu wa taala muy lijjanti say tànk yi nga jaar dëkk sàngam ak dëkk sàngam loolu tax nag nga riccu sunu borom subhanahu wa taala la ci guddi googu dana mel ni juróom-ñett fukki at dund nga ko ak ñett yoo xam ne di ko jaamu sunu borom mu nangoo ko kon li weeru koor indi woon day jar na ñu ñaan weeru kooroon bañ a jeex ndax li ci sunu borom def ci moom rek la ko def kon xam naa li des ci waxtu wi daanaka jeex na kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu xàq ñëpp di bal xàq ñëpp di ñaanaat sunu deesee technicien bu mag bi di ko ñaanal yàgg ak wir ak mboolem ñi koy jàppale ci kër gi di siyaare mboolem borom xam-xam yi ci kër gi yëpp nin ko waxe woon di siyaar di jiital ci nuyoo bi ñoom ñëpp sunu deesee di siyaare mboolem magi kër gi yëpp di siyaar góor ñi di siyaar jigéen ñi techniciens yëpp ñu ngi leen di siyaar ndax ñoo tax ñu nuy dégg kon ñu ngi siyaaree mboolem ñu doon dallu tey déglu ak ñi nga xam ne woote nañ sëñ euh, Babacar Sylla Mbay moom rek moo fi woote tey incha allahu foofa ci furne jàmbaar ñoo ngi waxtaan ak moom ci nu ñuy def ba ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy jàpp ci émission bi moom itam mu def ci yitte lool xam naa bu nu jógee incha allah danañ fa jaari noo ngi siyaar mboolem jàngkati xasida yi di mbooleem siyaar mboolem jàngkati alquran yi di siyaar mbooleem ñi nga xam ne kilifa yi diine yi di leen ndokkeel nag bu baax baax baax ci weer wii nga xam ne sunu weeru bopp la muy ummatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di siyaar mbooleem sunu auditeurs yi nga xam ne yëpp ñu ngi dallu tey déglu mboolem ñi sant caw ak ñi sant fay ñi sant Diouf ak ñi sant Ñing ñoom ñëpp. tu couleur ak pël yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar ñu nekk biir Touba booleem ñu nekk ci jaspora bi ñu ngi leen di ñaanal xéewal gu ànd ak taw feex sunu borom defal leen ko sunu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne lu ko neex def yal na nu weer waa ngii di dem yal na nu fi bàyyi te bu ñëwee yal na nu fi fekkaat liñ ci woor li muy néew ko bari yal na sunu borom nangul nu ko sunu borom su ko nungoo yal na ko ful yal na sunu borom def li gën ci nun te dëppale ko li nu gënal yal na sunu borom musal ci yàqu ak yokkat ak yàqule yow yàlla bu wërsëg wi nekkee ci ko asamaan ne ko cëng mu wàcc waay bu nekkee ci biir suuf ne ko pullet mu jege te barke lool ginnaaw sunu bakkan nag nan na gamay nelaw rek nga ne ru seet rogi ndànk jibba suñ Tuubaa dëxus ba aljana barke borom Tuubaa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 على الكتاب المستبين مع جميع نعمي الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع نعمي أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريد مانجي جرم بوال مجا دلين انكوراجي دي وخني لوتاسا